waaw xam nga ñaari langage moo am. Hmm. benn langage bi mooy langage complaisant boo xam ne dangay wax di am yooyu sàmm di am yooyu làq-làqal. moo hmm. am beneen langage de vérité je pense que benn chroniqueur sànq bu ci ñëw. Euh, te boo langage de vérité boobu day laal ñëpp ci wàllu koom parce que yaa ngi wax saccage man ñëw naa fii débattre. Mm-hmm. en deux mille dix neuf si affaire Auchan dégage ma ne leen loolu du wax France dégage man leen du wax bien que man ñi koy wax man ak ñoom ñoo bokk conviction ci ñoom laa bokk xëy na am na ñoo xam ne dañu may classé comme opposant ci ñoom mais dafa am wax ne dama naan leen bu leen ko wax. c'est le technicien qui parle. voilà parce que jeune bi nga xam ne mu ngi lay dégg amul sa niveau d'entendement. c'est ça. Mm-hmm. donc waroo ñëw en tant que responsable nga ne France dégage parce que la France na dégagera pas parce que. scientifiquement ñaari approche moo am. Mhm. l'inclusion ou la rivalité ñun ay scientifique lañu nous préférons l'inclusion su ma inclure njaga mhm. lu mu xam dama koy mën a approprier wu. damay booree xeetale xam-xam yépp ma inclure ko wala ma def rivalité ak moom su ko defee lim lim lim xam lu ma ci intéressé wu du ma njëriñ. France c'est vingt cinq pour cent du PIB du Sénégal coopération française xëy na mën ne dañ koy jéem a remodeler ba mu gën dañ ci gis suñu bopp. mais koo xam ne ñeenti yoo jël sa réew benn bu moo ko moom boo ko nasaxalee rek à court terme conjoncturellement da ngay nasaxal sa bopp boo tojee a ña fay liggéeyee ngay ay sénégalais ñoom ngay tooñ boo demee toj total ña fay liggéey ngay tooñ. dëgg la boo indee ay problèmes yoo xam ne dañuy arrêté arrêté internet ku doon defar wave bi day toog 3 jours du du liggéey ku doon def euh, multi service du liggéey donc je pense que y' a une y' a un une approche beaucoup parce que américains yi ñoom ay ay kii lañ ay ay ay ay kaala lañ. même dans le cas bi gars yi di wax ay discours violents naan ay wéy il faut que ñu nekk ci nguur gi bu ñu jógee ci nguur gi dañ leen di dañ leen di tëj dañ leen di jàpp man leen non soyez intelligent parce que man pour man ku mel ne Macky am benn CV boo xamante ne bii nekk na directeur nekk ministre nekk premier ministre. nekk président assemblée nationale nekk président. yor CV bu costaud doo maslaa ak moom bu dee ba nekkatul njiit nga yóbbu ko sur la scène internationale mm. mais da ngay toog di ko menacer. moo tax ma ne am na langage boo xam ne ñëpp lay dal ci ñëpp lay dal. il ko ñu waxante dëgg ci biir réew mi. xool li ñu arrangé. ñu di ko wax di ko doxee ba àgg ci loolu. moo gën ñuy nekk di menacer nit ñi di intimider ku nekk ci nguur nga ne ko boo daanoo dama lay rey day jàpp. mais yooyu man dama koy dégg ci réew mi daf may naqari gis naa sànq ay gars yi def ay rencontre naan un million de signature pour que Macky Sall nekk candidat ñooñu bëgguñu Sénégal. parce que fii ay loi ñoo fi nekk ñu war ko respecté Macky Sall bu demee keneen day ñëw àggale. dëgg la donc nañ bàyyi discours yi tas réew mi yi indi ay manifestation ku fi bëggoon a dugal sa alal da ngay arrêté parce que tey jii moom amul amul benn problème amul benn sikki sàkk ka képp koo xam ne yoroon nga sa xaalis diggante deux mille vingt trois bii ba deux mille vingt cinq nga ne da ngay dugal sa xaalis Sénégal téye nga ko. même yow mii bu doon da ngay investir même yow sa restaurant da boo am boo doon am nga restaurant tëjoon nga ko keroog. Mm-hmm. te bu fekkee perspective dañuy kii muy menacer ñu koy taal. mais da ngay tëj sa restaurant ña fa doon liggéey nga leen dem leen ngeen ni ba mu des ubbiwaat. investisseurs yi banque seen i loxo. ñëpp banque seen i loxo dëkk dërëm du dugg ci dëkk bi donc je pense que il faut que aussi ñi opposants yi. ñi nga xam ne dañuy diriger Sénégal ñu soigner seen discours parce que parce que l'Union européenne boo xoolee seen site 31 pour cent des recettes fiscales Sénégal ay entreprises européennes koy fay ci biir réew mi pour cent des créations de valeur ajoutée entreprises ci biir réew mi. ñooñu boo leen génnee ci équipe Sénégal nga inclure leen jéem a xool loo ca teg mais nga leen di fragiliser di leen demloo kooku di nga nekkaat ci réew mi pendant dix ans door a am situation bi ngay wut yow c'est-à-dire que dama fi nekkee di dof doflu ba nasaxal <laughs> investissement étranger yi nekk ci réew mi découragé leen bañ commencé dem parce que bisi sax dem nañ ñoom ñoom jaay nañ seen affaire am na benn assureur sénégalais boo xam ne dem si yàlla si moo ko jëndoon taayal mhm. moo jëndoon ay parts ci bisis donc dama ne li fi ay étranger moom bu ñu fi nekkee di leen nasaxal di leen xupp ba mu jógee fi pour nga remplacer loolu rek pour mën a naan da ngay développé wu. su ma la déggee bu baax l'implantation de ces entreprises étrangères c'est une bonne chose pour le Sénégal. mais c'est un atout majeur c'est il faut l'inclure